mooy ki nga xam ne ni mooy euh, suñu candidat bi nga xam ne tête de bi nga xam ne dafa démissionné au profit du Benno Bokk Yaakaar ma ñëwoon nag doon si indi ay leeral par rapport à ça politique su fekkee ne da nga ko bëgg a def fond de commerce di ko def bëgg def politique te amoo benn conviction amoo benn amour pour le Sénégal mais yow ak commerçant yéen a yem kuy jaay nga yore marchandise di ko jaay. loolu nag moom moo dal suñu mbokk yi nga xam ne dañoo nekk dañoo jugee fii yëpp dem Benno Bokk Yaakaar te boo ko xoolee ñëpp Touba lañ jugee au niveau départemental képp ku fi jugee ci parti bu mu mën di doon que ça soit PASTEF que ça soit beneen parti que ça soit bunt la coalition bunt bi dem Benno Bokk Yaakaar rek Touba nga dëkk loolu nag dañ ci war a def jàngat loolu njiitu réew mi ak tous les responsables politiques du Sénégal war nañ ci def jàngat bu mag a mag xam ne loolu ce sont des leurs ay affaire truand la ay affaire yu salté la affaire yu ñaaw la te jikko ju bon la ñu koy coller département de Mbacké loolu moo tax may jug di alerter pour que ñu xam ne ces gens là sont ne sont pas des hommes politiques ce sont des commerçants. li ñu tàmbali woon ci liggéey bi nag demam gi yàqu si dara dara dara dara dara li tax yàqu ci dara mooy kenn da ko toppul kenn topp ko la coalition bunt bi dafa wute ak yeneen coalition. coalition bunt bi ay mouvement la yoo xam ne nii mouvement citoyen ñoo ko constitué presque plus de 36 mouvements ak deux partis politiques authentiques donc ñii Sénégal mooy leen ñor bu ñu amee parti seen benn parti benn la mooy Sénégal ñooñu ñoo jugoon doon ci liggéey donc li ñu liggéeyoon lépp yàqu ci dara parce que kooku man maa doon plénipotentiaire départemental te pourtant je suis à la cinquième position liggéey bi yëpp maa ko yor je le chargé des élections maa ko yore donc moom dafa dem te yóbbuwul kenn dafa yóbbu dañ ko nax sax laay wax dañ ko nax parce que Benno Bokk Yaakaar du ko defal dara ni mu dafay moroom rek lay dig la ba nga yaakaar ko ñu def la loola déclaration te doo ci am dara tête de bi nag pour dikkaat joxaat nit tête de liste day difficile ndax tête de moom bu ñu ko xasee désigné dafa am fu muy jaar ba mu doon ko mais nag néanmoins am nañ ci ay personnes de valeur yu ci nekk ku mel ni Serigne Baara Serigne Mouhamadou Lamine Baara Mbacke doon sët direct ci Serigne Fallou doon sëtu Serigne Modou Boussa Dieng man ak moom ñoo ngi ànd di ci liggéey te lépp lu ñu waroon a jël disposition bu ñu war a jël sur le plan administratif ñoo ngi ko doon jël di ko doxal te incha allahu rabi au soir du 31 juillet on aura un résultat très honorable boo xam ne loolu lañ liggéey ci terrain bi parce que fi lañ dëkk fi la ñu yaroo ñëpp xam ne alert bi ñuy def nag c'est fondamental te loolu bëgg naa waa Benno Bokk Yaakaar xam ko bu baax a baax a baax surtout au niveau de Mbacké les transferts yi ñu defoon ci élection municipale yi du jàll parce que ñun ku ci nekk bureau ba ngay voté xam nga ñi dëkk Mbacké ak ñu dëkkul Mbacké donc maa ngi wax ñi nga xam ne ni ñoom la ñuy jëlee ji ay tindóodi di leen di jëlee fu mu mën di doon fu nekk di leen indi mbàkke ñuy voté nañu def très attention ndax lu ñu fi góobe rek ñoom nañu ko gar waaw ñooñu électeurs yi may waxal xam nañ seen bopp ñi leen transféré xam nañ seen bopp te on va pas se laisser faire non mënuñu jël raw gàddu gi parce que li ñu fi amoon ci élection yi ak li fi opposition amoon ak li leen bàyyi yëpp suñu leen wanee ginnaaw mënuñu jël benn bokk yaakaar moom ñoom duñu gagné dara ñun li ñu xeex mooy nañ am taux faible un taux très faible pour le Benno Bokk Yaakaar au niveau département. ñun suñu activité nag lu ci ëpp ay proximité la parce que defe naa ne tëgg ak fecc jamono ñu da koo laajul surtout Mbàkke gi nga xam ne ñoo ñàkk ku mag a mag a mag ay kilifa yu mag a mag ci wàllu ci yoonu murid bi ñàkk ay ay ñàkk ñu méttee méttee métti kon ñun suñu ngor suñu fulla suñu suñu jom ak suñu taalib gi ñu wuyoo ndax doon sëriñ rek waxul taxul nag nga doon taalibe kese ñun ay taalibe yu wér lañ. li fi xew ci kër dëkk bi mayuñu suñu ngor ñu ñuy tëgg ka mbumbaay waaye daal danañ dugg si nit ñi ñoo ngi dugg suñu mbokk yi suñu xarit suñu am di jaam yi parce que fi lañ dëkk tas bu ñu fi bëggee dara war nañ ko man am